nekk leen jàmm yàlla yu sell bàyyi ngi nag seetlu leen ko yéen gone yi xamu bàyyi mag ñi xam nañ ko képp ku sol yu tilim ne bàyyi la du moom ku am xet gu naqadi ne bàyyi la du moom ku wax lu amul njariñ ne bàyyi la du moom ku nekk nit ñi di leen tooñ ne bàyyi la du moom ku daraja rekk tax di yëngatu ne bàyyi la du moom ku organisé say mbir nag ñiy taalibee bàyyi rek nga xam ne nit ñi bëgg nañ bàyyi ngay sos ay yëf ak karaama nit ñi jànguñ topp seen mbëggeel ka sëppuñ xam-xam nga organisé yëf yi xamale nit ñi ci seen bopp doo siyaare ji madina doo toppatoo doomi bàyyi waxtu bu nekk ngay programme lu xem ci yow wax naa guddi wax naa bëccëg ne waaja du taalibe du dëgg ci boppam la nekk te bés dana ñëw ñu xam ne ci boppam la nekk yow duhoo dara taalibe moom nga war a doog toppal ci kaw bàyyi nga gis ñi toppal ci kaw bàyyi topp ci kaw sëriñ mooy tax doo sëriñ seetlu leen ko ci Cheikh Serigne Baye Niass mo doomi Alaaji Abdoulaye la ndax doomi Alaaji Abdoulaye du Serigne Seydi Aliou Cissé mii topp ci kaw Baye ndax am na dara dara dara lu jëlee fenn fenn fenn lu mooy ci Baye amu ko kenn mënu fee wax ne Serigne Aliou am na fi benn daraja bu mu sutee bokkam yi lu mooy ci ron Baye kenn mënu ko Cheikh Serigne Baye a ngi nii lépp daf koo sànni ak bokk ak jegeñaale lépp daf koo teg yéen ñëpp dégg ngeen ci kaset yi te waxoon na ko ci saara ñaanal leen ma ma doo taalibe waaw Seex Sëriñ May Alaaji Abdoulaye Niass jur ko mu jàng wattu alxuraan jàng ci bàyyi am xam-xam di jaamu yàlla nekk borom daraja nekk koo xam ne dafay liggéeyal yàlla dem dem dem ba mu jëg dundam taalibe yëpp dajee ci kanam bàyyi waxul dara ci taalibe yi lu may ñaanal leen ma ma doo taalibe yow nag nga foog ne yow sëriñ nga yow yow na ngaa doo sëriñ da nga àggum sax foofu bàyyi dafa ne sëriñ mooy ku pare ci boppam ku ne bàyyi wax nangam te muy dëgg da am téeméer yu ko déggandoo yow ndax ci mbedd mi la daan waxee musta nëbb di wax moom kenn yàlla nattooxuñu sëriñ boo xam ne ci néeg bi lay nekk rek di wax ñu ñeme yàlla yi di ko yokk yàlla ñu loolu de dafay wax ba sonn dafay bind ba sonn dafay jaamu yàlla ba sonn dafay dox ba sonn ku ko bëgg a gis gis ko ku ko bëgg a déglu déglu ko ku ko bëgg a xam-xam ko ku ko bëgg a roy roy ko yëfam yi daf ne fang leer naññ kenn mënu koo sos kenn mënu koo lëddëmal soo amee sa bànneexa bakk nag lu neex nga ne mooy bàyyi du dëgg laa wax man ci diine laay xoote te am naa ci ndigal duma ci hut lu neex nit ñi lu neex yàlla laa ciy xoo ku bëgg na ñëw ñu àndoo ngir yàlla ku bëggul na toog duma la wax sax kaay dem nit ñi boo leen ne kaay ñu dem suñ meree dañuy toog naan bu ñu dem dangay ngay jóg rek romb leen jëm ci njub ku bëgg topp la soo fi nekkee naa leen kaay lu ñu dem dañ lay tardeel demal rek yow nit ñi wax naa leen ne ñaara fi nekk ki la bëgg ak ki la bañ ñëpp nañ lay tardel xam nga lu tax doon naa ko wax dama leen ci indil misaal jógal léegi ne dangay dem dakaar pour sa soxla boo xam ne lañ la fay dëhal soo ca jotee sa soxla yi faju xanaa boon dem gi moo lay jëriñ jox nañ la rendez-vous ne la 5 heures nga ñëw agsi yëf yaa ngi fi programmé nañ ko teg léegi nag nga dem ba fii ci kaw la wala ci yoon wi rek am picc yu rafet yu neex baat yu mën a woy nekk ci sa ndeyjoor am gar yu dëgër yoo xam ne ay gaynde lekk saafaanu yoo xam ne ay jaan lañ ñëpp a nga ci sa kanam nga di leen seen yoon waa ngi ci seen diggante nag soo ragalee jaan yi ak gaynde yi ba demoo ndax da jot ci lañ la doon dëxal boo àggee loolu mooy noonu yi ñoom tàddeelu la soo seetaanee picc yu rafet yooyu di woy ba demo ndax da nga jot ci lañ la doon deul lolu moy sappé tardé tardé rek la ki def la tardel ci lu neex rek sa bakkan bi ki tardel la lu ragalo ci sa bakkan way ñepp dañuy tardel nit ku jëm ci yalla da ngay dogu jëm ci yalla julleel nit ñi ñetti rak su leen duñ ci dara mënuñ dara xamuñ dara xamuñ dara seen bop daf leen fi sax fat ndax da nga dem yaakaar leen borom nit ñi moo leen moom ñu ëppale rajo yi mel noonu la nit ñi mel ku ci yàlla yëngatu def loola doo mën def olof dafay wax ne borom ndékki ku ko njëkk xeew da nga tëddaat loolu du léeb olof ku fi bëgg xut li neex nit ñi te ba fa yàlla doo ci jot coole yu bëri rek te dootoo xam jam waxtu bu nekk kii na la ñëwoo ci sama xew yi kii ñu la defoon nangam su ko defee ngay ragal nit ñi di programme tardé waxtu yi dootoo wax lu baax sooy wax sellu neex nit ñi bu ñu yëngali seen bopp nga continuer ci loolu suñ ko dag dagalee nga bàyyi loolu du sottil mbir yi dogu leen jëm ci yàlla di ko jaamu te nangoo liggéey te bu leen yàq li ngeen di liggéey teg ko ca yoon wa jàngal seen doom yi yar leen am leen teggin yéen seen bopp jub leen xam leen fayda roy leen Maulana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu jàng jàngale jaamu yàlla liggéey bañ koo yàq bul tooñ bul dimbale kuy tooñ man loolu laa ci xam. bàyyi nag li ma leen di wax ni kenn santuma ko dama bëgg maa ngi xoote te ngir yàlla rek la am na ci jamono bi nit ñu dund di kër yi ay yëf bàyyi mosu koo def. maa ngi koy waxee ci pay bu mag ba waxuma leen ne tilim ak soof ak salteeg yooyu yëpp xas ko ko ci bàyyi waxoon naa ko fii maa ngi koy waxaat gis nga jël kurus def ko ci sa dox maa ngi leen di gëñal ci alquran du jëriñ dara te wallahi suma dundee suma deexee da ngeen xam ne du jëriñ dara te Cheikh Mati Anta dafay lu nit ndax mas ngeen a gis ku koy def di faj soxla yi du xam Cheikh Mati du fen mukk koo gis mu di ko sol du faj benn soxla te maa ngi leen di gëñal ci alquran te yàq liggéeyam bàyyi la yàq liggéeyam Cheikh Ahmad Tidiane laq yàq liggéeyam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko ci sa poos def ni bàyyi amal fayda liggéeyal dundee setal jubal waxal lu baax déggool ak nit ñi ne sàppe si jub bokkal ak jullit yi waaye nekk ci koñ bokk ak jullit yi dem ba mu yàgg mënatoo leen a gis bootoo bokk ak ñoom mbit xam nga ne li nga nekk du dëgg jubut baleen ko waa ji dugal leen seen kuréel ci seen poche yi man yàlla tax ma di ko wax soxlaalu ma leen tus su ngeen bëggee ñëw su ngeen bëggul ngeen baax lu ngeen xam ci programme nag ak ci xeex ak mer ak noono préparé leen ko jublu leen ci man maa ngi leen toog di leen dégg dara ngeen ma mënal dama leen di laxe bi rek ngir yàlla jël leen yéen ñëpp laa wax góor ak jigéen course yi ñuy sol ci ci ci doq baril ko ma ne Cheikh Matiane dafa dafay ñàkkaloo nit laa wax seet leen nag ba xam ni koy def dañ fay soxlaan déet duñ ko faj te itam naka ngay nekkee ci koñ juboo ak nit ña taalibe baay képp ku ko dox bëgg yàlla bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nekk ci koñ ma ne koñ booba xam jàkka na fa ña fa nekk nañ nekk ci tariqa murit nañ nekk ci taalibe Tiwaawoon nañ nekk fu ñu mën a doon gannaaw ay jullit lañ te mënoo def ak ñoom doo taalibe bàyyi laa wax jullit jullitay mbokkam bu mu jullit jullitay mbokkam doon ne taalibe Baay rek ñooy jullit yi loolu loolu loolu mën naa xam duñ jullit yi waa ji soo fi bëggee def taalibe Baay ñooy jullit yi suñu waxee ci Baay nga yàq programme yi xoote loo xam ne nit ñi mënuñ koo dégg da ngay tooñ àddina bi Baay dafa dëkkoon ak nit ñi di dox di dajeeg ñi nga xam ne ay jullit lañu xay ñi duut ay jullit sax muy dajeeg ñoom te mën a déggoo ak ñoom lu tax yow nga bëgg fee nekk nga yóoxu ci Baay rek dafa programme yoo xam ne gëmoo ko soos nit ñi mën a too nekk ak ñoom yàq programme bi yàq liggéey bi jàngoo jàngalewoo jaamuwoo yàlla jaxasoo hoog nit ñi juboo ak jullit yi nga bëgg fee nekk na taalibe bàyyi nga duhoo ko taalibe sa bakkan nga doo benn taalibe bàyyi bàyyi ngi nii maa ngi leen koy wax dafa defoon ay tool di liggéey ci Taïba du yéen ñëpp gis ngeen ko fii lañ daan dem ci ba nekk faayi fan xamu ci woon soxla dafa bëggoon a yar nit ñi ñu nekk ci liggéey ay nit ku leen jiite bëgg ñu mucc xam dara da nga leen digal ñu nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla def leen jullit ñuy ay mbokk ngeen àndoo di liggéey bokk dajee ci jàkka yi def benn sappe buñ taxawee ci sappe si buñ xam kii taalibe la buñ xam kii du taalibe la bul faale sax kuy xab xabdoo kuy saddlu defal yàlla muy sa borom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy imaamu sharia jullit yi yépp alxuraan lañ bokk di jàng kaaba ga mooy xibla ya képp ku nekk ci loolu mbokkam morom ma nga baleen tasaari gi ngeen di def ak gi ngeen di def du noonu bëgg nga bàyyi wóolu nga ko na la doy liggéeyal ko topp ko déglul digalam bàyyil tereem dee ci joxe dee ci xañ dee ci mer waaye defal jullit ñuy ay mbokk say mbokk lañu gënoo leen nit nga rek comme nit ñi ñoom nit lañ comme yow xatte baa nga jëm ëllëg soo bëggee bàyyi nit ku ko bëgg danga ko topp waajile nit ku ko bëgg te toppoo ko bëggoo ko bëggoo ko jumaa am ji ci marina du gis ngeen ko de sorole di gis ngeen ni mu koowee du gis ngeen néegam si tuuti soosu banqoo la ngeen defe ne mënu ko yàllaa ko doyoon néega boppam bi néeg su xat su mooy saal bi ci lay recevoir gouverneur yi président yi ñépp ci la leen di recevoir xam fayda ba dee nag ci dalam boobu da lay tëdd teg fa toog ma soo ñëwee du génn du dem fenn foofu lay toog nga wax fa moom sa soxla soo ko mënee nga wax ko soo ko mënul nga dem su ko yàlla joxee dara mu ubbi bunt bi di téléphoné di xoote xanaa doo ñëw seet si ma tabe rek la su jeexee mu xubaat ko parce que bëggut tëj jaamu yàlla xamul lu mu leen xamee ak mbooleem jullit yi noonu la daan def nit génne na foofu ba tey defe ne kii dafa dafa jaawale li ma may def na ko ba tey dana may gone gu ndaw dana may gone gu mag dana may mag ci boppam dana may jigéen dana may góor dana may ku baax dana may ku bon moom duggee geesu sax dafay xam ne jaamu yàlla jaam jaam la kii jaamu yàlla la te man yàllaay sama borom te kii jaam la ci yàlla kuy seet nit ñi jaam la ci yàlla kooku dana tasaare kenn loolu léegi nag dama bëgg ñu bokk roy baay ngir yàlla nañ ko roy ci jàng ak jàngale jàngal doomam bi ku jàng ba jàngal say doom yu jigéen gis nga coow yi dafa bari ci réew mi de waaye jàngal sa jigéen sa doom ju jigéen moo tax alxuraan bàyyi ko fi njëkk a def léegi nag alxuraan tasaaroo ba ñëpp a ngi koy jàng foofu bis rajo dégg ñu jàng yaa nga dëkk sangam nañ fay wàcc nanga mi kaamil ah jar naa seetaat alxuraan yàlla nañu ko yàlla may ñu di ko teg ca yoon wa dëgg la nag su fekkee dem lamb rek a fi ak dem jàng alxuraan bu ñu ko ne salutin moo gën salutin mo gën dañuy jàng téeméeri kaame mo gën dañuy seetaan géob eh, làmb liggéey bi jege si na xolof mooy wax loolu ndax ñun ay baykat lañ te ci asamaan la ñuy sukkandiku bu tawee amuñu ay moye adina bi alal ji bari na fi lool léegi waaye dañ koy fayee duñ ko defee farata ñaata ci ay milliards moo nekk ci adina bi di terene suñ suuf su tali si nga xam ne léegi boo sànni woon football ya ya ya mu dem boroomu ndofan dafa tali ñay amul xur ak xeer boo gasee am ndox boo jëmbatee garab mu dund boo liggéeyee xam boo laajee ñu waxal la boo tooñee sax ñu jéggal la réew mu baax noonu waaye nag maal asaf seen nit ñi dañoo sàggan te dañoo gàtt hitte cheikh sëriñ baña dafa daan wax ne gàtt hitte gi àgg na ci benn jabar rek ak nagu ratt soo ko xamee boo ñëwee ci sëriñ bi xam nga loo koy waxam te gémmiñ laa bëgg nga bindal ma benn jabar benn nag bu rat ngay bind lu téere bi génn loolu du font nit ñaa ngi moom avion yi muy naaw yow ak étage yi banque yi nit ñee ko moom du rab yi yow xam nga lu mooy benn jabar benn nag bu rat naan ko mën nim bindal téere bi gémmiñ laa bëgg ñàkk bëgg ngeen xam mooy yëf yi yàllaa ko moom nit ñi la koy jox soo soxlaa mu jox la ko soo soxla du la ko jox bàyyi dafa waxoon ne bëgg dara wut ko te xamoo ko lu jafe la bëggoo dara nag wutoo ko xam ko lu jafe la avion yi nit ñee ko moom état yi nit ñee ko moom banque yi nit ñee ko moom lu tax yow waxoo dara lu may néegam ñax laa mën a am buy senn la lay jox dafay xam ne amoo fayda bëgg leen li ngeen war a bëgg te bëgg ko ci yàlla teg leen ko ci yoon nag dee leen liggéey te bu leen yàq ñi ngi ñaan nag yàlla moom mi nga xam ne mooy boromam ñëpp ñëpp ñëpp te xalal di lépp moo ko moom ndax dégg ngeen ko ci alxuraan li ma leen wax fii ay su fekkee ci xolof lay doomee ci na ko ci fekk su ma ne xalal ji xalal yàlla ji xalal la ci bi la xam nga fu ko jëlee aatuhum min maalillaahi maalillaahi yàlla dana moom xalal ji tekkee ne min maalillaahi la si aataakum yàlla moom xalal jim leen jox moo ko moom xalal jooju nag damay ñaan ñim nekk ci seen loxo ñu dëkk ci réew mi maa ngi koy ñaan laa wax ngir yàlla ñu tabax suñu réew mi façon ni tabax boo xam ne dana baax am na fi ñu xam xalal ñu bari yéen xam ngeen loolu yàlla xiir leen ñu jëli xalal jooju mu génn ci réew yi tubaab yi nga xam ne dañ ko fay teg ca banque ya bénéfice bi di dolleeku rek ñu di leen jox xaalis yàlla xiir leen ñu indi ko ci réew mii kenn ku nekk gox ba nga dëkk te dëkk fa juddoo fa nit ñi wal seen cere yi ñëw seen tunguf yi indi seen bëy yi tajee ci sa ngénte gi ngénte ko ñaanal la yàlla nga xam taxawaay bu baax nga dund ñu dugal la école ñu di la may ay kaye di la may ay ñaari dërëm di jël ay xandi xandi laa wax xam ngeen ca temps booba da ngay sa baay dafay leb xandi pour école baa ngi jot ñu ngi war a jàngee ji ndara xamuñ tus ñu dem leb ay xandi ci jule yi bu nawet bi wàccee ñu natt ay ñaari dërëm di jël ay xandi xandi laa wax ngeen xandi xandi ca temps booba da ngay sa baay dafay leb xandi pour école baa ngi jot ñu ngi war a jàngee ji ndara xamuñ tus dem leb ay xandi ci jule bu nawet bi wàccee ñu natt fay ko ci ngay paas jënd ci ay kaye def ci sa yëf nga dem ba nga xam ne fi ne nekk nga kaadara am ay moyens am ay milliards denc ko ci banque bi ci réew yi te mënoon a gas forage distribuer ko àll bi li nit ñi mën a roose ñu préparé courant yi mu dem ci àll bi ñu dem borte fontaine yi nit ñi am ndox liggéey préparé xaalis bi am nit ñi dund ci jàmm nga defuloo loolu bayi loolu ba pare bayi fi gone yu jigéen yi tekki jàmbur boo xam ne du dara nit lay doon rek ñaari ven rek lay xamee bopp ak yi bët doo tan doo takk mukk ko dana sa bokk yi nga dem nak mu dila wone mala gën ak ni la tolok nuyul sama ki ak sama chammi la xamo ci tous ku ko neex mu wéetal na la sama chammi la bokkuñ dara préparé bokkam yépp sa doole yeeg sa man-man bi nga jox leen place yi nga xam ñi la doon dundal dila dimbalé dila yar ci sen barke nga ko xamé nga xañ leen tak sen doom yi xañ leen sa man-man bi ñaan naan yow baax nga xana dañu xamul li nga man motax nit ko xamul lu man nak man la may milliard du ko wañi dara may la fukki dara nga diko tag dang ko xamul motax te ma ngay may milliard du ko tu tus ñak fayda ñepp lay wax kep ku ci nek xam nga sa bop xam nga man wa su xay xam na ne xamuma xaalis yow mi ko amul xam nga ne xamoo yow mi ko xam nak ma wax ba pare nga kër yi ay programme ne man lay wax tus nga ba mënul sa xaalis bobu nay téeméeri milliard soko financer bam ba jeex dara nga ma mënul deug lay wax ta yalla tax tus nga ma mënul dégg dëgg nag comme tax a fi ngay baxi yëf yi dégg dëgg laa wax ma ne kum tax a defal li nga man lépp laa wax préparé ko réew mii doom yi fi dëkk ñu dimbale leen ngénte leen jàngal leen yar leen dimbale leen ñu nekk ay cadre xañ ñu seeni man-man jox ko ay jàmb du leen jëriñ tus laa wax dee rek ñu naan mm, compte ba annulé na loolu rek lay dikk amul benn njëriñ maa leen koy wax nu ngeen man def leen ko dundal leen réew mi fii quinze kilomètres yu nekk mën nañ faa gas def ay borne fenten génnee xaalis bi ñu yóbbu ko ci àll bi liggéey waa ji liggéey ci la nit di mën a ne dara waaw asamaan si nga xam ne fi mu ne mooy yàlla yi bari nañu fexelant yi bari nañu noonu yi bari nañu yàlla lànk na indeetu am ndoxam mi ngi koy wàccee ci géej yi ci xàlli tuga yi ndax te ndox du manqué mukk mukk mukk quantité bi nga xam ne moom la wàcce woon daaw loolu la yonentu wax sallallahu alayhi wa sallam su nit ñi xéwee na lee mu wàccee ko jariñoo ko ci tool yi suñ ko mayee mu yóbbu ko ci géej yi ak ci xàll bi nattu leen ñoom ndax لخت لي دلوات لي سي غنا دون افير نك موي يالا دا فا وخ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس من اللي يذيقهم بعض الذي حملوا لعلهم يرجعون فساد من فان في البر والبحر تي جيري جي سي جي جي ييب يالا بما كسبت ايدي الناس بكار ييغا خا نم لا ني ديف موتا ياك جي فان من اللي يذيقهم بعض الذي حملوا نخ مو مسلن بكار لن سي توتي مو lu tax laallahum yarji'un ndaxte leen ju dellu gannaaw mu ngi mel ni nga yër jël sa yaar rek sa doom def lu mu war a def rek nga caw ko xam nga buggoo ko bugal danga bëgg mu bale bi dem ndax li muy def amul ko njëriñ waaw yàlla nag di ñu yaree yàq gi feeñ ci jéer yi ci géej pour mu mosal ñu tuuti ci li ñuy def ci xeeti mooy yàlla ndaxte leen ñu mën a jàq dellu gannaaw ñu gën a féeteerlu ndax dana mën a dikkaat ba lu mën a ñëw